ngeen jot suñu vidéo nag mën a jot moo leen vidéo boo a xam gestion Covid bi ñun saluer nañ ko ndax état obligation mooy mu jël responsabilité ak lu mu ko laaj wax naa leen ni leen. dafa am solo état taxaw taxawaay bu mat sëkk keroog ba ma gisee président Macky Sall wax naa que ni que état day jël responsabilité am jël nga ko waaye état na fexe ba fu mu toll di diisoog kilifa yi di diisoog les composante de la société képp ku bokk société bi loolu dana tax. li ki war def mu yomb waaye nag jàpp leen ni ñu ñëpp am responsabilité si mbir mi du état rek ko yenu ki am responsabilité ki nga xam ne dafa sàggan jëfewul li nga xam ni moom lañ ko wax ba yàlla def jàngara ji dugg ko mu dem wàllu doomam wàllu jabaram wàllu ay mbokkam kooku kenn ëpp ko responsabilité mm. moo tax mbir mi dafa nekk mbiru individuel ba pare nag di soog a nekk mbirum état man daal lenn laay wax mooy maa ngi ñaanal yàlla musal sénégalais yëpp waaw te sunu julli bii nu julli biir Sénégal te sëñ Muntaxa jubluwu si lu dul yëkkati lislaam jubluwu si lu dul nal boroomam julli gi yàlla na doon julli gi nga xam ni moo fee jële Covid bi ba kenn dootu ko tudd biir Sénégal